sëñ Mountakha nag ku jar sargal la ndax lan sëñ taxaa ñëpp xam ni léppam yàlla la ñëpp xam ni léppam sëñ Touba la kon ku jar sargal la moo tax ñëpp génn si ñëpp génn si kon wax dëgg yàlla tey lislaam am na ndam kenn du wax murid yi am na ndam kenn du wax jullitu Sénégal am na nu ndam waaye lislaam bi yëpp am ndam ndax lii du wane lu dul ni sëñ Touba. am na ndam te su amee ndam lislaam bi am ndam bu leen ni sëñ Tuubaa bi mu fi nekkee lenn lan ko doon tubaal mooy jox boppam borom bi ba mu jeex tàkk bañ nangu autorité coloniale bañ nangu autorité coloniale nu jële ko fi yóbbu ko fi fii ndakaaru mu dund fi ay guddi yu metti te yàlla may ko ndakaaru jumaa joo xam ne àddina bi yëpp daan ko seetaan si wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa am na ndam sëñ Tuubaa li mu gën a bëgg mooy lépp loo xam dafa yëkk day yëkkati daraja lislaam te lii kat daraja lislaam la yëkkati du ndamu ju murid kese du ndamu julitu senegal mais ndamu lislaam bi la àddina bi yëpp a ko bokk jumaa Masalik wax dëgg yàlla kéemaanu yàlla la di ndamu sëñ Touba kon sëñ mu mi mu nga xam ni moom la yàlla defal yàlla may ko mu taxawu liggéey bi sëñ Alaaji Baara mu taxaw ko sëñ Cheikh Sidi Makhtar ñooñu yàlla ni duñu fekke mu ñëw àggale liggéey bi ba liggéey bi jeex mu nar ko jullee kon sëñ Mountakha am na ndam waaye nag sëñ Mountakha nii rek la man def lu tax dax ni mu dëggoo dax ni melokaanam